jërëjëfati alors fu ñuy dooree ma li nga xam ne nii mooy nekk Wally Ballago Seck ki nga xam ne mel ne kuy tontu ki nga xam ne nii moom mooy Boucher Ketchup wala sax bu ko tontuwul maanaam benn journal bi nga xam ne moom moo nekk foofu si extérieur moom tontu na ki nga xam ne mooy li nga ne nii moom mooy euh, Boucher Ketchup si wàllu question de salaire yi doon wax public bi mu wax naan du benn loolu yëpp tamit ki nga xam ne mooy cousin yi nga xam ne Wally Ballago Seck moom tamit incha allah rabi dafa mel ni tontu na li nga xam ne mooy Boucher Ketchup euh, loolu loolu ñu leen si wax Aïssa Rasoul est que dafa am li nga xam ne nii na ko doon wax ay waxi sew si biir moom na tontu na leen à travers son synap et c'est la première fois ñu gis Aïssa Aïssa Rassoul euh, di dugg seen yi qu'est-ce qui se passe est-ce que jaroon na ko ba c'est na avis donc am na leen li nga xamante ne mooy Youssou Ndour Dip Doundou Guiss ñoom tamit gannaaw Wally Ballago Seck dañ dem fële jeux olympiques yi représenté li nga xam ne nii moo nekk Sénégal waaye rawatina li nga xam ne mooy Afrique xam ngeen ko 2026 incha allah jeux olympiques yi nga xam ne dañu ko organisé fii Sénégal rawat Dakar donc loolu yëpp dañu ko waxtaanee bu baax a baax Wally ko Seck day tontu ki nga xam ne mooy Boucher Ketchup ou pas waaye lu leer ba leer mooy kii di cousin moom. tot na ki nga xam ne mooy Boucher Ketchup bi nag si c'est bon nañ dem déglu ki nga xam ne mooy cousin Wally Balago Seck ñi nga xam ne nii ñoom yaayam ak ki nga xam ne mooy Thione Seck ñoo bokk ndey ak baay ñoo nekk foofu si Pikine boo la tuddee tuddi nga xam ne mooy Benjamin tuddi nga xam ne mooy Mbaye si Ndiaye kii nag mëkk may mëgu magu Mbaye si njaay la nañ dem déglu ko daal ñëwaat si plateau bi ñuy gën ko forom fàccee. boykatam Pape Diouf daa jubawul ak ñoom ci li nga xamante ne mooy prix. xam nga dafa am yoo xam ne nii nanguwu ko. Hmm. même bu ko xel nangu sax nopp yoo koy dégg. waaw. yaa dégg loolu mënu nekk. Hmm. c'est olympique. Hmm. ku ne fa bëgg si. xam nga boo demee ba euh, naka gel boobu naka lan. gel boobu gel française boobu nakaaru ma xuma. ayaa nakamura ayaa ah ayaa nakaaru ah, ma xuma. Ah, gel boobu ñëw na fii Sénégal. waaw moo ko invité Boubs. barke Serigne Bamba ne ko ndax xam nga fii artiste sénégalais yi. waaw mu ko quelque. mënu ko lëmal. mënu ko comme kan mënu ko Zek Zek connaît Youssou Ndour. Zek connaît Wally Seck. Viviane. waaw parce que Sëñ Bamba tuddaatul kenn. Hmm. waaw. yaa ngi dégg. kon dafa am yoo xam ne nii nit ki suñu borom bu defee nit ki si lii. Hmm. même bu yeewee sa artiste yeggagul foofu. walla yeggu fa ka fa yegg nangul ko ko. xam nga. ndax tubaab kenn mënu ko ndax kenn mënu ko nax mais naka euh, ci kàddu Bousso yooyu peut-être am na artistes yoo xam te visibilité mooy tax ñu fay dem waaye ku ci mel ni Pape Diouf moom kese bu dëgër parce que du dem ba foofu di génnaat xaalisam di ko fa dugal. sa waay loolu amul fenn loolu amul fenn waaye li ñu ko fay. ci concert boobu su ma ko waxoon tey jii barke sëñ Bamba mën naa tas yenn group yi. nga ni barke Mouhamed. waaye gars yi bu ñu ko dee sa waay waaye du musicien bu ndaw. waaye cër gi nu jox Youssou Ndour lañ ko war a jox cër gi ñu jox Baaba Maal sur le plan international dañ ko war a jox cër gi ñu jox Ismaël Lo moom dañ ko war a jox parce que Wally dafa dafa progressé te day gën a progressé la preuve soo fi Wally nekkul yenn gaa yëpp da nga leen dégg ñu tëgg boo doo dégg benn bir wi Joal nekkul. doo dégg gaa yaa ngi tëgg de. mais doo dégg benn bruit comme diw fii lay tëgg wala diw fii lay tëgg su waal dañuy joué néew ma joué wuñu. Mhm. dañuy joué mais doo dégg bruit maanaam bruit tey bu waali di joué. ngay ngay toog ngay dégg ñu naan waali tey mooy joué vok kii mooy dee diw di mooy diw diw di mooy diw mais bu fi nekkut doo dégg bruit de. barke Sëriñ Bamba loolu suñu borom moo ko def ci moom. dafa am yoo xam ne ni yàllaa koy def. du ay yaay du ay papa suñu borom moo koy namm ci yow def ko ci yow. mais naka ngay déggee moo ngi noonu nekk mag si nga xam ne mooy Mbaye Ndiaye ñoo koy ziar bu baax a baax euh, borom baax la boo demee euh, seen kër da ngay xam ne moom dafa yaatu lool lool lool donc ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar nekk cousin nga xam ne tamit moom moo nekk Wally Balago Seck. di di défendre yi nga xam ne nii moom moo nekk euh, cousin am parce que dégg ko nee na Wally Seck bu tëggulee maanaam bu nekkulee Dakar da yaakaar ni dëkk bi kenn tëggul parce que biir du am dara du am waaye tamit toog na ki nga xam ne nii moom mooy euh, Boucher que daal neen dépassé na xam ne nii moo ngi dee ba naan Jeux olympiques dañ fay woo ki nga xam ne mooy Aya Nakamura Serigne Dione et cetera donc mu fa woowee Wally Seck ça veut dire moom moo fa toll te Sénégal fii nag au niveau international wala sax Sénégal fii kii di Wally Seck moom mooy number one koo xam ak koo xamul yépp peut-être da ngay suufee sa artiste parce que jàpp na ni sax kii di Boucher Ketchup lu mu wax suufeel artiste am la mu toll nii Ousse dafa mel ni kàddu boobu tamit yëkkati yëkkati woon nga ko démb. Mm-hmm. waaw moom xam kàddu gi daanaka. Mm-hmm. dafa am loo xamante ni tënkoon nañ ko fi démb waxtaan ci ñun ñëpp. Mm-hmm. xëy na moom it lim ko indiwaat tey askan wi ndax kii laaluwaali daa war a laaluwaali. man yàlla dogal na dama lu doy waar dama daan dem foofu ci studio bi di fa mm-hmm. waaye bu ma fa demaan danaa ko fa fekk mais ci ci ci ci bizarrement mosumaa xam ni sax ndeysaan moom mii di wax mm-hmm. ci kër ga la bokk carrément ngir mm-hmm. oyofam ak ay bagaasam si boo ko dafa woyof semaine bële bële jàll yàlla dafa dogal suñu benn mbokku taalibe di sëriñ Xaadim Mbay di sëy ak rakki Alsane Ndaw jour di jaaraale Alsane Daw di ko jaar de passage keroog bi mu ñuy xaalis bi mu jox bëri na maa yooyu ñu may rafet na. Mhm. di ko jaar jaaraale bu baax a baax a baax. ndem yàlla natt na ma ci njabootu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. Mhm. ñoom it bu ñu toogee man am naa xëy na cër ci ñoom bu may yëkkatee ay kàddu di ko biral. bi ko mhm. biralee ba pare ma wax ba pare mu ne ma kaay mu ñëw moom mu jël kàddu ci mbooloo mi kii. ne ma nag dama lay suivre waaye yéen a ngi def liggéey bu jafe waaye nag liggéey bu am solo. waxtaan ak man ci waxtaan bu baax moo tax ma ko ci ziar de passage waaye nag li ñu bokk di ci wax te ma jàpp ni man li may wax mooy vérité moom it mu jàpp ne li muy wax mooy vérité xëy na dañ cee xaw a benn côté. Mhm. ndax ñun ñun jàpp ne li ñuy mooy dëgg <clears throat> démb ma wax ko moom moo damay tóllanti mhm. Wally Seck ñun defuñ ko ko yaaram de ah barke Cheikhul Khadim ma lay wax benn affaire. musiciens yi nekk Sénégal yëpp koo ci yeewu tàpp tàpp tàpp tàpp ba mu jug yeewu nga ne ko yàlla dogal na ci ay dogalam suba yaay doon waali dootul nelaw day yàqamti suba jot ngir mu doon waali moom wax na ko bàyyiwuma kenn nag da ngay confirmer que Waly Ballago Seck c'est le number one de la musique sénégalaise koo fekkoon këram mu tëdd nga ni ko tàpp tàpp tàpp jugal ba mu jug xool la nga doon koo munti doon xaw ma malaaka ngay doon xaw ma ne ko suñu borom ak cooberam ak dogalam moom moo dogal na ca law xil masfus bindi nen ni yow boo xëyee waali sekk ngay doon mhm. dootul nelaw day yàqamti fajar jot ngir moom mu doon waali sekk koo ci yee kon ku mel noonu danga koy ñaanal te xam ne du moom <clears throat> waali gëmut lim doon xam nga man la waali lu tax gëmut lim doon pourquoi merci jërëjëf moom xam nga tax gëmul li mu doon moom foogutoon ne dina doon kii xam tax foogutoon dina doon waaye li da doon ñaan yàlla football. moo mu dem ba Italie. moom loolu la doon ñaan doon ay jour wala nangam sàngam moom yoonam musique pour nekkoon ci am ci dara waaye loolu yitteelu ko ndax man ba may jóge maanaam fa may jóge di dem Lamine Gueye di fekk Serigne Ahmadou Mbacké Jadi di nekk ci yeneen. foo ko fekkaan moom moom moom paa ñu koy woowee paa yuut. paa lan paa yuut. paa yuut la ko doon woowee waaw biir HLM ak jëppal gii xam nga looy fekk ci ci ci saag bi. Mhm. ay godaas. kon moo tax mu ne la moom gëmul li mu doon moo tax bi mu ko doonee mu doon lu doy waar ci moom. mooy ay ndogalu suñu borom fa la suñu borom di awalee ba nga doon li nga doon moom moom sàkkuwu ko moom sàkkuwut doon wéykat mais yàlla nattu na ko muy doomu wéykat yàlla nattu ko mu bëgg fubal waaye yàlla yit ci ay coobare moo dogal ko ni ne ko wéy ñii nga ciy demee ba Sénégal luy wéy moom insha allahu rabbi sa loxo lay tegu loolu nag dëgg la looloo tegu ci kawam waaye Maria si nit mu nangu ndogal li waaye bi mu nangoo ndogal li dafa généreux xanaa xamoon ni Wally lu nekk dina ko am ci musique moom te Wally bu dee dix lay war a am ci musique amagul xolal benn bu dee dix la war a am ci musique amagul benn xam nga lu tax xolom bu yaatu Wally dafa dafa génère ku baax la waxoon naa la ko naa la ko waxaat artiste Sénégal yi ku ci nekk yaa ngi tëgg soirée yeneen ku banque danga naan naa baax niveau ca Wally parce que yow biir na ni yow Wally gis la sa deux cent mille rafet lu mu bon bon wala nga yéeg ci seen Wally yow sa cinq cent mille taxaw loolu baax la gis nga maanaam maanaam li coon baayam waxoon ci moom rekk la xam nga Wally xanaa xamoon ni Wally ku ko xas safu ko ku ko tagg safu ko merci nit ñi ak mi seen merde la yemale te man gëm naa lu xam nga lu tax mm-hmm. ndax ndeyam da ko gërëm ba làqu bàyyam gërëm ko ba làqu mu jaayante ba am li mu am mm-hmm. waaye bi mu jaayantee ba am li mu am kooku koy kan kooku suñu doomu réew la suñu fierté la Wally Seck ñun la doon suñu fierté ndax mooy jël suñuy mbir ak suñuy bagage ak suñuy mbir di jël gis nga ni El Hadj Diouf di yóbbu woon Sénégal Sadio Mané ñëw aj level bi Waly dafa ñëw aj level bi loolu la li kulli shay'in ajal chaque chose à son temps temps la fi ne nii nii nii nii nii nag li yàlla dogal nii nii ci Sénégal Waly c'est le meilleur numéro 10 yi bëri neen mais bokkuñu football équipe nawetaan yi sax am na numéro 10 mais duñu ay ñun suñu équipe bu ndaw bi Daaru Salaam maa ngi leen di di ziar waa équipe bi ah équipe tàggat yaram Daaru maa ngi leen di bëggee bu baax baax sama gars yi góor yàlla yi Baye Fall yi maa ngi ziar ñëpp Aba Serigne Baye Sarr mooy suñu numéro xam nga lu muy football des fois. Hmm. te maag moo may Aba xamul dara te numéro 10 <laughs> yàlla yàlla yàlla yàlla mooy dogal du numéro 10 yëpp a doon Messi non non non du numéro 10 yëpp a doon Messi. yàlla dafa dund te yemalewul léegi nag loolu dañ koy nangu léegi nag bu fekkee nag nangu nga ko ba noppi ci sa xol lay feeñ d'accord li ma la waxoon démb laay waxaat maanaam bu dee boucher mi wax ci Papa juuf booy Papa juuf leneen la xam nga lu tax leneen la Papa Diouf bu dee bi mu ci tollee Pape Diouf dafa woy ba ñëpp nangul ko woyam mën ngi mën Pape juuf ba nii bu la tiimee xanaa nga yor dix mille te dix mille sax bu fekkee moom nga yor fexeel ba bu ko bu mu doon sa dépense de da koy jox xam nga lu tax parce que fi mu lay aw la ndax dafa mën a way pire nag waaye lu mën way mën way kii yàlla daf leen nattu kii mooy star bi kii la fi yàlla teg kon am na yenn yoo xamante ni boo koy jël sax di ko wax ci ay kàddu maanaam moom ngay sono parce que xam sax lu mm-hmm. mu ngi tàmbalee am benn jaxase bu ndaw bu ci am ndax ñenn ñi sax ñu ngi naan Pape Diouf a ko yónni. si démb démb bi commenté. dama lay wax et pourtant ce n'est man dama lay wax maanaam dafa am sax maanaam comme loolu nit ki même bu yaa ngi koy yaa ngi koy noonu wala yaa yaa ngi ñu ngi sax naan ay Pape Diouf a koy te wallahi azim Pape Diouf buñ ko tegee ci Pape Diouf Pape Diouf Pape Diouf xam nga lu mu tal fexeel ko dese ci musique bi ni mu ciy amee ay réussite mais talul ay détails. ndax Pape Diouf ndam weesu ci moom Wally bu sekk mii ñuy wax ba mu nee bëreet ku nekk di wax mooy photo bi mu koy lëngatu kenn gis na ko. mu def ko cadre bu mag ñépp di ko gis bi ñu ko laajee lu mu leen wax c'est mon idole mooy sama woykat moom laay cons loolu ndam la léegi nag ki lay cons dem ba téye musique moom xanaa yow war nga bëgg sa fierté la war a doon. noonu la demee rek kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi félicité waat bu baax a baax a baax a kilifa gi di ko ñaanal tawfiq man sama ci sama gis-gis daal ndax nag ku nekk am nga sa gis-gis fu mu ne nii Wally Seck lu mu mën mën mën mën mën wéy am na ñoo xamante ni Pape Diouf mooy tooy seen xol. moom lañ bëgg. alors moo ngi noonu comme naan ñu ko la bëgg. waaw alors comme ni nga comme ni ko xam ne nii euh, Wally Ballago Seck mooy tooy na ñoo xam ne nii tamit euh, Pape Diouf mooy tooy seen xol donc euh, soxna soirée merci beaucoup Yolande Yolande Gomis merci beaucoup à toi aussi ñoo ngi di jaajëf bu baax baax. Dena ba Masady yow tamit ak ki nga xam ne mooy Aïssata Sow Fatima Diouf merci beaucoup à toi alors Nana. Mhm. na gisee kàddu yi nga xam ne nii kii di cousin Wally Seck jóg na ko défendre moom tamit kii di cousin am ay la c'est normal. c'est normal tu trouves ça baax parce que ku laal sa deret non waxuma comme ça du ko défendre c'est normal. Mhm. da wax ne c'est normal mu défendre ko parce que bu laa laalee sa deret il faut que tamit nga yëngu. kon wax nga ni c'est normal mu ngi défendre ko loolu nga wax. ci question de deret laa wax. question de deret. par. ah musicalement parlant waaye. voilà donc man damay dugg ci musicalement parlant. parlons de musical de voilà de la parce que parce que ki wax bu ñu seetee nii du Pape Pape Diouf par exemple fan sam moo génn du ko bokk ak moom ndey ak baay du ko bokk ak moom papa du ko bokk ak moom nijaay fan la. fan sam bu maximum da koo bëgg. déglu ma rek maa ngi ñëw fësal ni man mi Pape Diouf laa bëgg mooy sama nit toog te man j'en suis certaine que ni Boucher li mu wax nii ba mbir yi jur coow ba ku ne di jëfru dégg ma. bu amul woon certitude bi du toog ci télé di ko wax ak lu mu mën a mën tooñ dégg nga ma d'accord kon man je trouve anormal musicalement parlant anormal nga jug di tontu parce que man j'en suis certaine waali ak ni ma ko xamee lëg loo ko bañ bañ nangul ko ni nopp ya daa gudd mu mën a daw hmm. waali ak ni ma ko xamee man ak ni ko sénégalais yi xamee bu yëgoon ni cousin wam bi dafay génn pour di ko défendre du ko nangu j'en suis certaine parce que nekkut ci yooyu mi ngi mel ni nga yéeg escalier rek moom moo ne la feede doo fa yegg nga wàccaat beneen paa ko du ma bu soobee yàlla dinaa yegg de mu waxaat la beneen baat nga wàccaat ne ko doo yegg loolu la sama maam naan cë cëggul jamaa gu ñu acca ñambaxtalu garab nga bëgg a yëg ajji ko bëgg ku la sànni xeer nga wàcc fayu ku la tuff la moo la fay fekk ajji ko te doo ci mën dara waali bu doxee woon noonu ku jug mu tontu la nooree ni mi ngi koy wax sànq waali ay débutam dafa metti ku ne ko waxal jamonoy saar bi te ba jamono jii may wax ak yow ñu ngi koy waxal terewul jugul tontu kon pourquoi tontu ak booy tontu looy tontu Pape Diouf sañ naa yónni waale ne ko mënumaa tëgg parce que gis nga artiste dëgg sax da ngay nangul sa sa moroomu ndaanaan ndaanaan gi mu doon des fois nga gis artiste boo xamante ne dañ koy woo pourtant euh, ku mel ni euh, faatu Guewel Viviane mi ngi ko ko doon seedeel damay am problème wu baat ma woo Fatou Guewel ne ko jàmbal ma defal ma nangam ak nangam parce que sama baat bi mënul jóg dafa dee mu defaral ma indil ma mais ak genre gii nga xamante ne ñoo fi nekk di jaxase genre gii nga xamante ne ku génn ñu ne la yaa fi ne na seen poche di duuf tant que ñu ngi fi kenn du wóolu sa moroom te fekk ñu ngi ñàkk a aar bi dafay gën a deltu ginnaaw kenn du ko yóbbu international googu ñuy wax ñii naan disque d'or laa bëgg ak ñii naan international laa bëgg a dem duñ bouger yotaa non mais franchement duñu bouger yotaa man maa ko wax et je l'assume parce que gis nga nit da ngay defar sa xol ba pare xol mooy nit te Pape Diouf en toute franchise mu ne ma Wally dafa bon parce que xamaluma ko lu bon gisaluma ko lu bon mais man damay damay wax damay généralise gis nga Pape Diouf ku baax a ngi noonu. si ku baax ku sonnal musique te li gën a graaw moom bi muy bi muy bi muy bi muy ñëw ci musique banlieue la jógee. Euh, pour confirmer rek baax boobu nga wax. Mhm. Euh, Zénith bi nga xam ne nii kii di euh, Sir Diop. Mhm. def na ko. Mhm. maanaam Pape Diouf moo ko waroon def. waaw ba pare di ko bi ko Sir Diop seet siwee mu ne ko demal nga seeti waali. voilà bàddoo la munut loolu. coomo munut loolu ku bon wala ku iñaan munut loolu. waa léegi gis nga kan moo la wax sax ne la waxuñu Pape Diouf na dem tëggi mu mënul tëgg mu dem ne waali demal nga tëggi kon ni mu ko defee ci Sidi Diop ci Zénith bi. pourquoi pourquoi nit ñi di xool lu négatif. problème mu cachet la ñu wax rek ñu ne wéy Wally moo ko war a ëppale cachet Pape Diouf nangam ak nangam Pape Diouf dafa prouvé ba toll fii mu toll génne ay single bi muy génnee partira booba booba metti woon na booba génnee soo metti na mu prouvé. naan foog ma mi ngi noonu maa ngi tolloon ci ba muy ba muy débuté dafa metti mhm. comme ni ma ko waxee ci Wally Pape Diouf banlieue la jógee banlieue ba metti ñu naan reykati nit ya fa lañ dëkk sàcc ya fa lañ dëkk nangam ak nangam yi fa lañ dëkk ñoom ñëpp ñu casé leen ni dañoo bon banlieue ba. ku mu toog di représenté banlieue. ni banlieue ba borom jom ñoo fa nekk borom mi fit borom mi ay jàmbaar fàq tëdd ñoo fa nekk ba tey mu am lii mu am mel nii mu mel mm-hmm. kon kooku te kaay ma wax la Nouré ni dafa wax lu am solo muy waali merdu ak merci wu sénégalais yi la yamale ndax xam nga lu tax dafa prouver ba toll fi ni mu toll Pape Diouf it noonu la def parce que fu nekk pré représenté représenté na fa Sénégal te terewul saa bu ñu xëyee di ko yàq keteme mu continuer combat loolu mooy jàmbaar fàq tëdd est ce que ma. donc ñun nekkuñu fi nag pour tagg kii que ce soit wala pour ŋàññ kii que ce soit mais dañuy généraliser gis nga. surtout genre gii nga xamante ni dañoo mel ni nanaa amuñu métier amuñu liggéey topp ci ginnaaw nóora ni rek di di ko dunguru nañu leen bàyyi loolu gis na Sénégal fekk loolu mi ngi fi yàq gi dina gën a garaaw defar yàq gi dina gën a metti dina gën a tar ndax yow li maa ngi dunguru nóoree ni li neex nóoree ni laa koy wax li li nóoree ni bëgg laa koy wax li koy arrangé moom jamais ma wax ko parce que bu bu ko arrangé rek man du ma arrangé nañu bàyyi loolu nañu bàyyi loolu man wax dëgg yàlla je trouve anormal moom muy génn man j'aurais préféré fansu Wally par exemple génn tontu fansu Pape Diouf parce que kaay nag wax la gis nga clash yu ci bari ngay gis artistes yi clan yi nga xamante ni ñu ngi koy génnee la plupart seeni ay fans ñoo koy génnee kon yoonu fa mi nekku ci nañ waxante dëgg fay fan sam la tuy frère am ne ay cousin lañ ma ne alors moo ngi noonu euh, d'accord ku nekk. Euh, j'aurais préféré man laa wax sama point de vue la. Mhm. j'aurais préféré fan sa génn tontu fan. benn idéal yi génn wala euh, non je sais pas man si teew ma noonu. moo ngi noonu en tout cas moo ngi noonu diggante Pape Diouf ak Waly Seck dafa mel temps moo xëccaat garaaw ba ki nga xam ne mooy Boucher Ketchup génn ne maanaam kii di Pape Diouf moom moo ëppale wala sa ak suñu ko waxee Sénégal yi ba jàpp ne Pape Diouf moo ëppale cachet. moom Boucher a a vraiment réussi. et moom comme da wax chaque jour. a réussi mën neexee laa yëngal game bi et encore une fois. waaw oui hmm. yëngal na game bi man damaa jàpp ni à 100 pour cent. xanaa xamoo ni Boucher Ketchup moo gën a bëgg ñëpp Wally Seck. ay eh, mais Ousse keroog wax benn boobu ba léegi moom. Boucher Ketchup. nee lu ah, mu réewee jour boobu ñëpp ci àdduna Wally Ballago ah. Seck. xam xam nga démb dañoo teg fii affaire bi ma ne leen da koo def pour yëngal game bi. Mhm. il a réussi. waaw. Mhm. wax waaw parce que lii la bëggoon dem bi ma koy wax defe naa ni ci suuf laa ko waxee. tay ma biral ko parce que dama xam ne lii la ci bëggoon te xoolal ngeneen ak ñeneen dinañ jóg. parce que moom moo moom moo teggéem bi xam showbiz ni ñu koy defee ba pare li gën a neex ci Boucher Ketchup moomoo mooy que nii defeewu ko mu salte am na ñoo xamante ni dañuy saaga di xaste di def naka su dut noonu te moom en toute francisme. yow dinañ ngay waxal. man ay waay cité ma benn tur ma dama ne. ma dégg dama ne dama ne am na ñoo xamante ne am na ñoo xamante ne dañuy génn elee ñu wax lu si lu civilisé. ñu mm. naw leen ci déedéet. dañuy wax pour lu neex artiste bi te ñoom xamuñu ne ñoom dañ ciy yàqule xam nga ku Waly Balago Seck woo ne ko carrément yow dangaa mën sa nit mu toog wax ko ci kanamu Waly toog fu ne wax ko fi kon kooku xam na moom li muy def ak li muy def lan la ci mën a jur. lan la mën lan la ci mën a am mais am na ñoo xamante ne dañoo salteel gem bi. d'accord merci beaucoup. jóge fenn yàq deru nit ka ka nga nekkaloon nga xam ne yéen a ànd but ba but baar ba baar yéen a fa doon ànd nga jóge fa di ko di ko yàq keteme dem ca keneen di ko waral taatam. gis nañ ko fi non non tooñu ma. mais li ma wax am na wala amul. ah na kay. kon kon kan laa tooñ. jërëjëfati kontaan naa si alors euh, dafa mel ni question de cachet yu doon wax démb